dañ koy tàmbalee ak discipline bi di athlétisme on va démarrer justement avec la polémique qui tourne autour euh, des primes de Louis François Mendy euh, yéen a ngi gis information yi ci réseaux sociaux yi euh, mu nekk athlète sénégalais nekk itam champion d'Afrique euh, moom nag à travers euh, sa page Instagram muy wane li nga xamante ni moo di son mécontentement par rapport ak prix bi nga xamante ni jox nañ ko ko en quelques heures information boobu daal di def le tour des réseaux sociaux et tout le monde en parle justement ban ban gis-gis nga am ci lu ni mel. parfois damay damay toog si ak dafa mel nit ñi dañuy fàttali xewoon. parce que ça on en parle depuis presque 1960. affaire plume yi. boo seetloo période période euh, équipe nationale bu njëkk ba. Mhm. gars yi dañu leen daan fay ay deux mille cinq cent ay cinq mille. Mhm. ça n'a pas varié ba léegi ñuy fay cinq mille athlètes dix mille dirigeants après ñu dem Abuja je me rappelle j'étais aux Jeux africains de d'Abuja mhm. en athlète dañu xëy na du ñu daw athlète karatéka judoka ñëpp Sénégal ne du ñu daw du ñu yéeg tànk révisé wuñu à la hausse les primes booba c'est Youssou Ndiaye Youssou Ndiaye qui était ministre d'État ministre des Sports le président Wade était là mm-hmm. ñu remonté histoire bi à la présidence le président Wade a dit wax nañu dëgg yokk leen affaire yi mm-hmm. ñu yokk ko def def naa dix mille dirigeant vingt mille xam nga booy def booy def vingt jours. Mm. ay Jeux africains nga def vingt jours dans ce pays ñu jox quatre cent mille pour un dirigeant athlète bi ñu jox ko deux cent mille si période yooyu neex. Mm-hmm. mais dañuy yem foofu alors que le sport évolue. tout à fait lépp mm. li ñu gën a am comme problème mooy fair des performance de haut niveau. te performance de haut niveau pour nga def ko il faut nga am des infrastructures de haut niveau ce qui n'existe pas au Sénégal amul ah boo xoolee ñi nga xam ne dañuy def actuellement euh, performance yi nga xam ne mooy ñoom euh, Louis François Mendy fu ñu ko defee Europe pourquoi parce que ñu dañu am ay infrastructures adaptées ba pare nag am des coachs yoo xam ne dañ lay jël haut niveau hmm. xam nga loolu dysfonction boobu boobu am entre fii ak vole moo tax ñu si bëri dañuy jël nationalité beneen dem mhm. ils préfèrent mhm. mais que doit faire maintenant l'État du Sénégal avec cette rupture bi nga xam ne moom la ñuy wax investir justement tant qu'on a pas tous les niveaux mhm. dañuy jël ndaare beneen bi lui François Mendy sa déclaration mm mais c'est c'est un cri de cœur boo xam ne ça ne concerne pas seulement lui François Mendia ouais. ça concerne tout le monde ouais. karatéka man man j'ai été chef de délégation au Maroc pour les championnats d'Afrique de karaté junior mais su ma la nettalee la ñu daj ba ba ñuy ñibbisi <laughs> da nga da ñuy yërëm kon lii du tey ça date pas d'aujourd'hui dama ne lii dafa war a am rupture maintenant mm. li François wax c'est vrai mais on doit réviser réviser xam nga problème mooy. c'est des primes officielles gis nga lii. Mhm. c'est dix mille francs jour. s'il fait cinq jours on lui donne cinquante mille. cinquante mille est-ce a non non non attends Pape Malick dafa am loo xam ne dans la vie dañ koy wax muy dëgg gi. Mhm. c'est frustrant par exemple on fait la comparaison avec le football. Ouais. ce qui n'est pas comparable c'est vrai mais quand on gagne un titre africain. le football a gagné un titre africain. Mm-hmm. est-ce que dañ koy dévaloriser par rapport ak yeneen fédération yi loolu la gars yi dul nangu c'est pourquoi mu am polémique sur l'équité et ou l'égalité. on ne na 23 millions 23 millions la doon xaar. t'as vu. ko 80 000. tu vois mais non non non attends non dafa ndànk dafa ndànk nga man léegi maintenant je prends les informations avec des pincettes. moo ko wax waaye dafa ndànk rek moo ko wax oui. c'est vrai mais dama ne il faut aller à la source parce que les dirigeants aussi am na information yu war a joxe. tout à bi la muy vivre moom moo ko xam. Mhm. je vais vous dire le cas de Binta Diong de l'escrime. Ami Sène. mais y en a tellement c'est à la dañuy taxu fële daan ne joxuñu ñu loolu la ñuy wax dañu naan kenn joxuñu. Mhm. ñeena jox nañ ko. kan ngay gëm. parce qu'il y a plusieurs versions. voilà moo tax parfois man damay bras croisés dama naan léegi régler maintenant le problème. Mhm. c'est au niveau de l'État c'est-à-dire on tourne la page on revient sur une rupture intelligente mhm. efficace à partir d'aujourd'hui mhm. et, et tu sais que il y a une barème pour un champion d'Afrique champion euh, euh, euh, euh du monde ak yooyu yëpp dafa am mille 700000 500000 250 yoo xam ne c'est préétabli loolu la ñuy yéex a fay da nga gis ñu toog 10 ans du leen ko fay. des années. récemment quand on l'a fait on a donné à certains athlètes euh, euh, euh disons sportifs ñii jox nañ leen 4 millions ñii 5 millions ñii 10 millions loolu moo warul.